groupement yi nga xam ne ñoo sa ëmb groupement de femmes ya fa nekk yëngatu ci wàllug mbay enveloppe bu toll kon ci euh, téeméer ak euh, juróom-benni fukk ci ay millions ci sunu koppar euh, Serigne boobu nag moom mooy président bu chambre bu commerce bu Kaolack ñu teewloo ko ak Alioune loolu nag dafa nekk loo xam ne depuis dix ans ñu ngi koy def liñ ci financé gun yëpp daanaka mën na plus de dépassé na un milliard cent. ñaareel ba mooy tey financement bi ñuy def cent quarante neuf millions la. cent soixante et un euh, muy cent quarante neuf euh, euh, kii groupement cent quarante neuf groupement ah, groupement bu ne comme ni mu la ko waxee ëpp nañ lu mat cent waaw loolu nag dafa nekk loo xam ne nii dañ ci am mbégte ci loo xam ne nii li muy jur ëllëg dafa am doole ci économie Sénégal ci économie région bi ak économie critères yi li ci ëpp mooy nga nekk agriculteur am tool te euh, sa dossier baax et daanaka ñii daanaka euh, ëpp na euh, lu mat ay at ñoom chaque fois dañ koy jël suñ bayee ba noppi ñëw dellusiwaat ko ñu joxaat leen ko yaatalaat ko daal. Hadj Mansour ci sunu ay édition bëri waan ay nit yu engrais ndax lii début de solution par rapport euh, ñu financé di ay groupement de femmes toll ci ay téeméer. mais <laughs> solution la. Mhm. xam nga xam nga lii dong yoon la buy wane tey ñaata opérateur économique yu mel ne Serigne Mboup. Mhm. yu bu ñu leen joxoon opportunité waxuma leen jox leen financement de parce que soxlawuñu ko. Mhm. mais opportunité rek pour ñu contribuer ci biir askan wi Sénégal dina passé fii mu ne mais de boo defee benn yoon def ñaari yoon commune ba nga koy defee maire baa xeex. yow da ngay dëkk ci dëkk jëlee ambulance bitim réew indi ko fii nii pour maire bi signal la rek ñu wàññi woyofal la douane bi ciy tege donc maire yi dañuy bañ. parce que nee nañ boo ñëwee askan wi dañuy bàyyi ci yow xel dañu lay bëgg da nekk ëllëg seen wujj. Hmm. cest à manque de respect bi yenn ci ay kilifa. ak ñàkk yërmande gi ñu jëmale ci senegal gale yi nga dul comprendre moo tax gis nga affaire engrais bii nii. Hmm. yow mënoo gëm ni Sénégal engrais def fi cher. Hmm. mënoo ko gëm ni engrais def fi jafe. bu fekkee wax nañu la. quantité bi ICS di produire par jour. laajal benn ingénieur man xam naa ci kenn. koo xam ne il est diplômé na arabe. mu ingénieur la mu ngi liggéeye ICS. bu la waxee quota wu engrais bi ñuy produire par jour mënul gëm ne li ñuy jaayee saako engrais Sénégal moom lañ koy jaayee. indien yi koy yi koy exploité mhm. bu ñu ko dañ koy transporté ba noppi mu gën a yomb ci seen dëkk lañ koy jaayee fii Sénégal mhm. ba noppi ñoom ñoo ci gën a ëpp accès te mboore gii lañ koy defaree tay bëgg daa nga xudóos lañ koy defaree mhm. nga wane ni suñu suñu gouvernant yi wallaay faale guññu wallaay kippee guññu ba léegi xamaguñu gis nga li Ousmane Sonko di wax anti système man déggeewuma ko ni ko Sénégal yi bëri déggee lu ah. affaire xeex wala guerre wala jëli ak cest ci wàllu gestion nga xam ni moomeelu askan wi la soppi yow ba ngay solo li mu la neexee ah. di wax te kenn du ko dindi hmm. di jël ay dogal mu lu askan woowu nga war a boole askan muy gest muy gestion inclusive dañ leen ci war a boole hmm. xoolal tey exploita exploitation ndox mi ndoxum Sénégal yépp ni mu toll Sénégal amu ci kàddu gu muy wax am nga ministre hydraulique hmm. amul sens parce que ndox mi ay étrange ñoo koy exploité muy seen o ndoxum rural bi offort mu ngi fi amul sens parce que waa Aquatech ñoo koy exploité hmm. te ñu ni kenn du leen tudd te ñuy mucc deretu askan wi hmm. di def ak maa tey goo xam ni euh, kenn du leen tudd boo leen tuddee sous préfet tey Lambaye Lambaye tey ma jox la comme information. Lambaye gépp dañoo génn def benn ndaje boo xamante ni bii dañuy dootuñu tëdd nelaw mukk fii ak dàq xewuñu ba fa nekk. que baka fegoo gi muy defal waa Aquatec pour détruire askan wi. ñun ko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg genre yu mel noonu bu ñu fa tollee ci Sénégal. Hmm. dañu soxla ay genre yu mel ni Serigne Mboup. ay genre yu mel ni Bougane ay genre yu mel ni ñeneen ñi nga xam dañuy investir pour ay jeunes di fa liggéey. Hmm. pour mën a taxaw participer ci liy tabax Sénégal. Hmm. en tout cas at wi moom euh, paasan nemmeeku nañu ne monde rural bi am na nañu jafe-jafe ci wàllu engrais euh, Kaolack tàmbali nañu am début de solution yeneen gox yi yan yoon la war a mën a ngir xëy na génne leen ci jafe-jafe gi nekk mais xam nga Mansour exemple bi mu la jox tey bu état wu Sénégal taxawoon. ne indien yi bon dama bëgg bu saison bi tollee fenn fi. Hmm. ñu war a jub hivernage dama bëgg ngeen jox euh, engrais tous les agriculteurs du Sénégal. Hmm. état wu Sénégal da koy décider rek. indien yi mu neex leen mu naqari leen. Hmm. day am kon ñii nga xam ne dañ leen war a jaay engrais sax boo xefee duñ ko jënd. du moment que ñu ngi koy defaree suñu biir suuf mu ngi jur mu ngi am résidu di am résultat mais xam nga euh, Mohamed. volonté. Mm-hmm. maanaam bëgg-bëgg. njiit su fekkee passionné wul. pour ñi mu mm-hmm. jiite pour mu dimbali leen dina jafe xool leen comment ñi ñi nga xam ne ñooy administrer Sénégal ñoo koy gérer. Mm-hmm. autorités yi xool leen euh, Mouhamed jëlee sa téléphone. ni ñuy waxtaan ak yow.